ngir dimbale woy jur yi ba ñu mën a gunge xale yi ci njàngum lii fantu dinañu tëral ay jataay saa su nekk. waxtaan bi nag di ngeen ci gis jëf jikko yi sax jëf ji nga xam ne dafa war a sax dàkk ci xale bi ak ci kër gi ci biir loolu nag dañ leen di defal benn théâtre bu ndaw ngeen xool. na nga ma dimbale la waaw demal nag nga nuyu sa ñoom maam ak sa ñoom bàjjen ak sa papa nuyoo nga ba pare xaaral nag ma xool sa saag bi ndax am na lu manqué walla lu lay gaañ wala nga dugal ci lu niin ah tey de def nga ngóora dara manqué te li ma la waxoon def nga ko demal nag nga teg ko fee ca table ba teg nga ko ci table bi kaay nga naanagum naan kaay nag nga noppalu bu ñu añee ba pare ñu dem fi ñu daan dem nag toog jàng ami noppalu nga waa dama indi saag ba tey nag danga may won ci teege kër gi fa ngeen yem ca teere école ba amee fii ngeen yem waa léegi danga may jàngal da ngeen jàng ca école ba dox mbokk gaaw bi weesu mhm. lañu fa fekk ami kon mokkal nga li ah jaajëf biir loolu la waajur bi di ca xale bi ba génne ci yeneen baat yu bees da ngay soo xalaatee ma wax am na loo xalaat ah ami ami li nga xalaat am na ñeenti tànk. am na geen. am na ay loxo. déedéet. ami ami lan la am na karaw. benn bët la am. ñaar. muus muus la. waaw léegi nag man am na lu ma xalaat am. am na kaw. waaw. na jën. waaw. am na bët. waaw am na bët de. ami yow maa lay gañe. ni jana. ah ami yow yaa muus. ami ku la wax ne janax la. gis nga ami ko li ma la doon wax yëpp a ngi nii. gis nga bi ma xalaatoon mi ngi nii. yow bi nga xalaatoon mi ngi nii. léegi nag lii ñu fi def tey. dañoo bëgg su ngeen demee nii ñu ko defee ngeen defee ko ci kër yi yéen a ko waxal seen bopp day jàngale yaat dina tax xale bi xelam màcc ndax day xalaat ba pare gis ngeen bi ma koy jàngal damay jëlee ci loxo càmmooñ yóbbu ci loxo ndeyjoor ndax su may wax nii rek xale bi du xam fan la toll xale bi du xam lan lay wax dama bëgg nag su ngeen demee ci seen kër yi ngeen di ko jëfewoo ak seen doom yi ndax nee nañ waajur bi naam du jàngalekat waaye saytu bi muy saytu xale bi ca école ba dina ko sawarloo ba tax njàngam yokk bu ngeen seetee sax am na benn kayit boo xam ne day yombal lëkkaloo école ak waajur day indi lëkkaloo musée bi ak waajur bi ndax kayit bi boo ko xoolee fukki fan ak juróom yu nekk dañ koy signé xale bi yóbbu ko ci waajur bi bu ko yóbboo ci waajur bi waajur bi da koy signé yóbbu ko école delloo ji ko musée ba bu ko ko delloo musée bi dina ko wax fan la xale bi toll ci liy fantu. léegi nag dama leen di delloo laaj bi lii ñu fi def léegi lan ngeen ci jàngat ak lan la mun a indil xale bi. li ma si gis ci xale bi bu ko toppee jàngatam mun na si jëlee set ndax bi mu ñëwee raxas na ay loxoom bam set kon bu ko toppee dafa war a xam ne bu raxasoo dafay set bi mu paree. mu nuyoo dina am aajo te bu rombee nit ëllëg dana ko nuyu léegi bi mu pare nga wax ko ne ko sa saag bi lan moo se ne war lay xam ne bu ëllëgee lépp loo xam ne bagage yi dagg la waru koy def sit fu muy jaar mun na koo dagg lu muy yore mun na koy dagg. ba tey maa ngi siy jàngat xale bi li ngeen def nii su fekkee ne topp na ko bu ëllëgee dina suivre njàngam bu baax. jikko yi sax yi bu ko xale bi sàlloyee fu mu ne dem dana fa mu ne ne. dina exprime dina yaatu la muy jàng dina ko xam lii daal ñu fi wane mooy lu ñu war a saxal la du lu war a xam ne dañ koy def tey bàyyi ko tey. lii nag moo nekkoon solo si daje bi bu ngeen demee dee leen ko jëfewoo ci seen biir kër yi. woyjur bi mën naa wutale jéemantu yi ñuy digal xale bi jaarale ko ci yeneen ponk.